looloo andi woon ma dem inscrire olympique club. ma dem inscrire olympique. ñaareel bi. ñaar ndax man sportif laa mës a doon na ngay def sport waaye lépp luy sport de contact na nga ko bàyyi. karaté bi na nga ko bàyyi. football bi na nga ko bàyyi. basket bi na nga ko bàyyi. parce que àndul ak li ngay def. ñetteel bi mooy saa su la douleur yi sonalee na nga def séance de massage la ñu commencé ci loolu 2007 laa commencé def des séances de massage jamono jooju ci benn cabinet bu nekk ville bu ñuy wax docteur Siklawi. bu ñuy wax docteur Siklawi. dafa def ay séances de massage. diggante boobook tey tenté nañu façon séance de massage bu ne. moo wax ni loolu bi may gën a nekk ndaw sonaloon na ma ba sama waajur bu jigéen fu ne yóbbu na fo ba bi ma ciy fàttaliku sax ay graisse yu yeew lañ ko mus a wax ne ko comme yeew yàlla may ne ko gannaaw goo xam ne dafa nangu dangay dem ut graisse yu yeew di ko ko diw jamono jooju soo buggee jënd kii bu graisse bu yeew bu ndaw bi 3000 francs la woon mu yoon lu métti ñu koy ut di ko ci diw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 wala kilo la jëlal sa der wala nangam nangam jigéen la kooku faju la kon demal nga faju ji ci laa dem deux jours plus tard def sama première séance kon li tax ma dem foofu benn bi mooy du un institut clandestin institut bu am agrément la état bi reconnaître ko mu ne fang ci quartier bi nëbatuwul def tableau ne fii dañ fi def massage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 defuñu fa woon lu bon te mosuñu ko faa def dañoo dem pour faju ji ci cadre boobu la ñu fajoo dem suñu yoon nee nañu daf fa dem 21 heures naam dem naa fa 21 heures parce que li ma yéeg ci sama yaram ba xam ni war naa dem defi sama séance de massage man maa ko xam te yoon may na ma ma génn 21 heures